waaw may fàttali suñu mbokku euh, téléspectateurs yi ne sama gan tey jii mooy maître Moussa Sarr xam naa sax doo ci bëgg a wax parce que c'est une affaire pendante à la justice waa ça entre dans le cadre de euh, la liberté ça entre dans le cadre de droits de l'homme également gis naa la dernière fois euh, les organisations de droits de l'homme def li nga xam ne mooy di conférence de presse le cas de Guy compliqué waaw du ma sori. présent sori non ma ci wax présentement parce que une affaire pendante euh, amul lu ma ci mën a xuus fi mu ne nii. Mhm. fii may wax parce que maa ngi def en enregistrement au moment où dugal nañ demande de liberté provisoire ba pare. Mhm. jàpp naa ne du teggin jàpp naa ne du worma ci man ma nekk un acteur de la justice di xaar dogal bi di yaakaar ne danañ ko bàyyi comme leneen mën na am may anticiper di wax ca loolu kon damay toog xaar. ci loola maintenant li am solo daal mooy ci mbiru manifestation liberté de manifestation wax naa ko loolu ñun ñëpp la laa condition yaa ngi koy gis ah oui maa ngi koy gis comment il vit la situation ah non non dans leur benn affaire euh, Guy est d'un moral inoxydable maa ngi koy gis mais dégg naa dañ ko isolé waaw dañ ko isolé gars loolu euh, quartier haute sécurité la nekk loolu ñëpp xam nañ ko. quartier haute sécurité waaw ah, waaw mais mais Sénégal mais man jàpp naa ne foofu du place mais lu ñëpp ci mën a wax rek muy nit ki. c'est un jeune mais man saay bu ma ko seetee su ma génnee damay pose question suma bopp waxuma ci keneen de suma bopp ndax pas-pas bi mu am mën nga bañ a ànd ak moom. Mhm. mën nga d'accord mën nga bañ a d'accord man suma rakk la on discute sur des questions d'international on n'est pas d'accord ñàkkul mu may dégg duñ d'accord ci questions yi mais da nga koy respecter parce que li muy wax la gëm yàllaa ko bindi noonu fan yi dama ko seeti xam nga lu ma ko maa ngi ko fekk mu ngi jàpp forme ma ne ko mais yow yaa ngi nii am temps tu as grossi et tout mu ne ma ah may fii maa ngi noppalu damay nelaw moo tax mais bu ma génnee tout le temps maa ngi ci mbiru askan mais gii boo ko fekkee prison ni mu mel jëm ak bu ne bu nee day dox wax ba sonn parce que askan wi rek a ko ñor mais ne gisee doo ko xamee pour wan la à quel point c'est un de conviction man bés bu nekk su ma ko gisee ba pare damay amaat beneen forme d'humilité ak beneen forme courage nga xam ne réew mi parfois ñi jara sargal dëgg duñu leen sargal wax dëkk fa yàlla jàmbaar la moom te ku gëm li muy def la nga d'accord ak moom nga ñàkk d'accord telu lu ku sincère la c'est un patriote sincère waxuma ne il a le monopole de la sincère mais ku sincère la. ah oui parce que beaucoup de combats yoo xam ne ku la ku may fréquenté la. Mhm. xam ko di waxtaan ak moom sur d'autres questions ou même on est en contradiction mhm. mais lim lay wax daf koy articuler mu nekk conviction ci moom te loolu mooy démocratie te man avocat am la su ma la ko waxoon doo gëm. dañuy débattre sur plein de questions on n'est pas d'accord sur des questions d'intérêt national parce que citoyen la may citoyen mu am un engagement citoyen par le biais d'une organisation man am un citoyen yem ko ci suma jëmm kese mais dañ ciy discuter nga xam li mu lay wax loolu la gëm te li muy wax aussi cohérent na mën nga nag bañ a d'accord ak moom léeg-léeg du d'accord ak moom ci lii am na loo xam ne moom toujours dama koy d'accord ak ku ne mooy ku ne sa sañ-sañ la ko bàyyee nga doxal ko ba mot sëkk kooku koo doon ku ne dama ciy ànd ak yow alors yow doo ko def mais ñun ñooy euh, sàkku euh, ci ñi nga xam ne ñoo war a jénne dogal bi euh, ñu may Guy Marius rafetul si deru Sénégal sax liberté provisoire parce que coow li bari na trop wër na àddina ñu jox ko liberté provisoire Noël fekkewu ko ak njabootam Noël fekkewu ko ak doomam ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen defe naa na euh, ñu bàyyi Guy Marius Sagna du ci prononcé wu parce que l'affaire est pendant la justice mais je pense que pour un même fait moo Babacar Diop lañ jàppandoo ci fi nga xam ne moo di grille de palais mu ñu am deux poids deux mesures ku mu am ndey ku ndey Babacar Diop bàyyi nañ ko mu dem parce que waa SAES e yëngal étudiants yi yëngal Guy Marius Sagna war nañ ko bàyyi tamit mu retrouver sa famille loolu la ñuy ñaan euh, ñi nga xam ne ñooy jiite euh, réew mi loolu moom mooy indi. am naa yaakaar ne dogal bi daal génn tey. dana génn tey balaa euh, timis yaakaar naa ko. incha nan lay doon dogal bi xaw ma ko mais am naa yaakaar ne dogal bi dina génn tey. yàlla na doon rek laa nga xam ne moom la ñu bëgg. mooy Guy Marius Sagna génn ci biir kaso bi loolu mooy permettre ma ñëw ci beneen dossier euh, mooy dossier Lamine Diack ci avocat Massata Diack yi nga bokk mais dossier boobu c'est très compliqué dañ ko renvoyé waat ba kañ. waaw dañ ko renvoyé. pourquoi ba 27 avril. pourquoi ak beneen date indicative du 3 ou 2. li tax mooy lox fa xew su xewoon Sénégal kenn du dégg. lu fa xew nga ne la fa xew. Ah. su xewoon fii ci réew mi kenn du dégg. lan moo fa xew. la fa xew mooy parquet national financier. bii topp depuis deux mille quinze Papa Massata Diack. Mm-hmm. bi ñu ñëwee ci audience bi ñu ñëpp pour layoo moo jël kaddu ne jekkaguma. moom procureur ci boppam bii mm-hmm. topp enrôlé dossier bi. ca bés booba le treize moo ñëw ca bés ba ne jekkuma pour ñu la yooyu damay ñaan ñu dax malgré liñ génn lépp coow lépp na Massata moo ko def mooy moo ko def moo ne parewuma mu ne moom parewul parewuma parce que ma dégg ko bu dul benn du ñaar du ñett mu toog wax ne Massata moo def lii Russie corrompre nañ ko nii Qatar yi jox moom laa la wax looloy loolu déggoo li ma la wax dama ne la fa xew bu fi xewoon fii kenn du dégg moom parquet financier bi indi coow li yëpp di wax ne am na preuve yëpp ba pare fixé datu audience enrôlé moo ñëw ca bés ba ne moom parewul ñun avocat Lamine bi ñu ñëwee ah, ah, Massata dañoo taxaw ñu woo Massata turam ñu jël kaddu ne président Massata du ñëw mu noté ne du ñëw ñu ne ñun pare nañ procureur jël kaddu bañ Massata ñëw non ñun bañuñu ñëw non droit la ku ne yaa moom sa bopp su la neexee nga ñëw. waaw la neexee doo ñëw. xam nga loolu kenn ko fii non entendre nañ ko fii ba pare dans le cadre la commission rogatoire xam nga euh, monsieur Niang. Mhm. dafa am loo xam ne ko ci droit. yow tey. Mhm. su la neexee doo sa bopp tu poses du forcé bu la neexee nga dem assumer lu la ci diggal am na sañ-sañu ba ne jam la preuve bi ñu ñëwee taxaw ne Massata du ñëw président bi laa teewul lu tax du ñëw parce que xam na ne droit am la il a fait défaut moom du ñëw mais ñun avocat ñu nga fa nañ jël kaddu. plaider joxe li ñu war a joxe ci ay këyit ak ay firnde dama ne parquet financier xam nga lu tax mu ne jekkul dafa ne ñaar moo tax jekkuma bi jiitu mooy commission rogatoire bi juge d'instruction xam nga ci droit bu juge d'instruction di def càmbar bu ñu ko joxee dossier moom du atte moom day càmbar juge d'instruction xam nga atte ñett catégorie moo am kii topp procureur kii càmbar di enquête juge d'instruction ak kii atte juge du siège soo déggee wax ñu wax indépendance de la justice nag juge moo ko moom ak juge d'instruction procureur bokk ca parce que dafa am rapport hiérarchique dafa ne juge d'instruction bi parce que yoon dafa ne muy Sénégal confrance France sooy enquête ci benn dossier su amee kenn koo xam ne da nga jàpp ne dañ ko war a déglu ou da nga koy topp te nekkul ca réew ma su nekkee ci réew moo xam ne dafa signé convention d'entraide judiciaire ak France am nga droit yow li nga ko waroon laaj yépp nga yónnee ko réew mooma ñu laaj kon xam nga tey kenn mënul wax ne Pape Massata woyul yoonu France li ko yoon may la jël bu ñu hmm. jaxasee wax nañu bàyyi di jaxase ay wax yoon may la dara nga jël ko bokkul ak da nga daw yoon déedéet moom li ko yoon may la jël Massata du citoyen français Massata du résident France amul carte de résident Massata musul résider France dafay dem mission Massata Sénégal la mës a dëkk depuis 2001. kon am na sañ-sañ sénégalais la fii la toog ba ñuy def procédure bi fekk ko France. boo déggee ku daw mooy bu nekkoon ne ba ñuy def procédure bi daf ko fekk France mu jël avion ba ñuy ubbi procédure bi moom Sénégal la ko fekk mu toog Sénégal toog réewam rax ci doolu yi réewam def li yoon santaane mooy saay bu ñu toppee sa doomu réew bitim réew ci benn ñaawteef nga ubbi information judiciaire Sénégal ubbi na en 2016 benn information judiciaire inculpé Massata Diack jël ko sous contrôle judiciaire ba pare mu am convention entre aide judiciaire France yónnee Sénégal question bi ko bëggoon laaj kon ne dafa daw wax ju yàqu la du lu am défaut la def te sañ-sañam la maintenant li yoon santaane France yëpp tontu na ca la preuve commission rogative bi tontu na lépp joxe ne donc procureur bi dafa ne euh, commission rogatoire bi dama ko yéex a jot mais bu ko yéexee jot c'est pas notre problème ñun Sénégal la ko war def na ko mooy def na commission rogatoire yónnee na ko maintenant bu document yi yéexee entre le Quai d'Orsay français et la chancellerie française lan moo ci yoonu Sénégal su yoon nekku ca. ñun la ñu war mooy respecté nañ suñu engagement internationaux yi mooy la convention d'entraide judiciaire Massata tontu na joxe ay firnde kon loolu c'est le problème interne si yoon nekk ci mooy premier motif bi deuxième motif bi mu ne ordonnance de renvoi ordonnance de mooy kayit gi nga xam ne moom la juge d'instruction bi jël pour topp Massata mu ne dafa irrégulier déglu bu baax li ma la mu ne ordonnance bi elle est moo tax ma ne la fa xew bu xewoon fi tojaa am kii topp moo ne kayit gi ñu toppe Massata elle est irrégulière parce que dañ ci boole recel te moom mosu ko toppee recel mais loolu mënul bett kel xam nga ma soo ko amee ci nit forcément da ngay juum. moo ko wax déglu bu li ma la wax te toujours bu ñu joxe exemple dañuy joxe exemple ci tugal procureur bi moo ne ordonnance bi elle est irrégulière donc nañ ko renvoyé waat pour ñu régulariser ko kon mu mel ni ak loo ci mën a wax suñ jaaxle amee ci seen boor la féetee te li indi jaaxle bi xam ma mooy lan lan ne ca biir commission rogatoire ba su nekkoon ne waxu falaa falaa fa nekk ak preuve amu ca kon mu ne nañ ko atte mais ay tontu yu leer nañ ña ca nekk ak ñu indi ko ak ay firnde parce que tubaab bi lu ñuy wër principalement benn un million cinq cent mille euros buñ ne dañ ko financé ay élection def nañ relevé de compte yëpp dem na amul benn centime. bu mën bu ñëw ci mais dara newu fa amul te ñuy wër ne dafa am un million cinq cent mille euros dañu financé fii dara du ca dëgg ay wax kese la xam nga droit du allégation. du présomption preuve preuve du présumer culpabilité da koy prouver donc boo waxee wax a wax a wax ñu def commission rogatoire document yëpp dem mais gisoo fa benn fistine bu fa romb xam nga kon il faut nga defaraat sa toogaay. Mhm. parce que mbir mi du yii xaay mais la ñu foogoon amul. parce que ñoom toujours dañuy def ay affirmation gratuite ne wuy diw yónnee na nangam def na nangam financé nañu élection sénégalaise mais loolu yëpp ah, du dëgg.